salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëñ Mor mbokk moomu doon laaj ci wàllu ndiir loolu ñu wax ndiir ndiir de lu bari njëriñ la lool te bari ay ferñeent lool sax te ñun ñu def ko comme lekku lekku xale xaw ma lekku golo loolu sax lañ ko def ñun lekku xale wala nga lekku golo ndax xale yi dong ñoo koy jël di ko jëfandikoo ci li gën a bari waaw waaye li muy néew nu néew ak li muy ñàkk ñàkk solo ci bët noonu de bokk na ci bëri njëriñ lool nga xam ne jéggi na dayo ndax ferñeent yu bare bari yoo xam ne ñu ngi koy wut ci lekk yi boo demee fekk ko ci xeeti vitamine yu bari la am vitamine b ak vitamine B2 vitamine B6 ba ci B12 vitamine E vitamine C yépp la am te yooyu lekk gu mu am rek day bari njëriñ lool ci walu wér yaram bo demee ci walu mbell yi amna ci yu bari amna fer amna phosphore amna na amna calcium amna manganese amna seng amna xéti xeeti protéine sukar xam nga yoy yépp amna diw amna fibre amna acide yi ma la wax yépp bo fekku ci te yoy lépp yi ma wax ni bari na nga fekk ko ci benn mbir mu daje ci moo tax lu lu lu bari njëriñ la waaw moom diir boobu lu bari njëriñ la waaye nag loolu li may wax lekk lekku xale lañ ko def dara waaye bari na njëriñ trop te bokk na ci luñ daan jëfandiko lu bare bare bari ca mag ñu njëkk ña waaw mag ñu njëkk ña daan nañ ko jëfandikoo bokkoon nañ ko bokkoon nañ ci seen mbir ñu bokkoon ko boole woon ko ci li ñuy jëfandikoo ñoom moo tax bokk na ci ay njëriñam surtout xale bu ko xale di lekk xale bu jeex nii nga xam ne miski miskil yi dafa amoon suux loolu bu koy lekk da koy fegal loolu loolu di jeexaay boobu nga xam ne day dem ba jeex loolu da koy fekk baax na loole ci wàllu gut loolu ñuy wax gut boo ko yëy gut mooy acide yooyu di lakk surtout ci baaraam yi wala sax mu nekk ci yaram yu dox léegule nga yëg ko ci faar yi léegule nga ko ci mbagg mi mel ni luy dox léegule mu ñëw ci gannaaw léegule mu ñëw ci wet yooyu boo koy yéey moom ndiir googu dafay saafara baax na lool wala sax tuur ndox muy tàng mën na ci àgg koy def tuur ndox muy tàng yooyu booy ndiir boobu noonu da koy da la ci fa bu sax di ko ko lekk baax na lool ndax de koy yokk soow day dolli soow bu dee yenn xeeti bopp yi mitit te boppi xaraan yooyu baax na ci lool da koy saafara moom ndiir moom bokk yi baax na lool ci wàllu tuur ndox ndax da koy segg ba mu set xeeti der yi it tawati der yi yëpp boo koy jëfandikoo moom it bokk yi na ko saafara moo xam ay picc la wala lu mel ne xeeti krobat yi yu mel noonu fekke xam yëg yëpp baax na surtout nga dëbb ko boo ko dëbbee di ko ci diw loo ko ci gën a mën baax na loolu ci wàllu mémoire ko koy yee day defar sa mémoire dana tax ba xeeti gaaw a fàtte yooyu yëpp moom ndiir boobu baax na loolu it ba tey ci wàllu sadit tax yi tax gis nga ñi jooma gaaw fuñ toll ñu ngi takko ak seen fit bi dem yu mel noonu yépp problème sa dig dana koy def ma toosoo ko yi loolu yépp suñ borom la ci aar baax na lool ba tey ci jafe-jafe yi nga xam ne dafa war aju ci wàllu xol surtout jafe-jafe yooyu di dal wàllu xol yépp boo ko yëy moom it da koy sàmm réputation bu maam la ko ci gën bariwul baax na lool ci ñi nga xam ne tey surtout ci soxna yi waaw suñ ko yéey jafe-jafe yooyu ñuy am ci wàllu gis baax boo koy def boo koy dana day taxit deret ji daw ni mu war a dawee jafe-jafe wàllu deret ji daw doo ko am te boo ko amul lu xeeti tension yëpp doo ko am ne léegoo leen nga dégg koy jàmbat sama wet gi mel lu fasu lu bañ noonu yëpp jafe-jafe wàllu deret ji taxaw noonu dox mel ni lu fatt noonu nga gis léegoo nga gis comme dal sax mu mel ni luy sëgg affaire bi dal ko wala mu tëdd affaire bi dal ko dootul ñi muy yëngu nooy sax boo ko defee mel ni dañ lay rey yooyu yëpp jafe-jafe ni ndoro ji da loolu boo yëy ndiir loolu da koy saafara ndax ferñeent nga xam tey moom la àndal ba ci xeeti bi colon yi ñu wax noonu butit gu mag googu noonu jafe-jafe yi nga xam ne moo koy dal surtout xeeti góom yooyu boo ko yëy baax na ci lool baax na loolu ci wàllu gis-gis parce que li ma waxoon C boobu am vitamine A boobu baax na lool ci wàllu gis-gis soo koy yi dana tax sa wàllu gis-gis baax na lool ci wàllu rein yi mooy dëmbeen yooyu ñebbe yooyu boo ko yëy suñu borom na ci defal taw ba xeeti jafe-jafe yi koy dal da koy àll ci aar bu dee ba ci wàllu res boobu boo ko yëy wàllu foie bi dina tax foie bi dox li mu war a dox ndax gis nga ferñeent yi ma limoon noonu yëpp ci gannaaw benn benn baax na lool it bu dee ci soxna yi ci wàllu euh, seen butitu njur yooyu nga xam ne day am jafe-jafe yu bare bare yu koy laal moom it bu koy yëg doon koy sàmm lool ba loolu mën na ko caa defal tawfeex ba loolu dootu ko yëgati baax na loolu ci wàllu prostate surtout prostate buy lakk wala muy métti yëpp bu koy jëfandikoo surtout nag nga boole ko boo ko booleeg eh, eh, doomi naaj yooyu ñu doon wax ci wàllu prostate nga xam ne lu ci baax la soo boolee ndiir ak doomi naaj yooyu dëbb ko ba mokk nga def ko sunguf waaw di ko comp di ko def ci lay lekk di ko lekkaat wala ngay ko comp noonu rek di koy di ko di ko lu ko gën ci wàllu prostate yu bëri jafe-jafe yi nga xam ne ni day am ci prostate yëpp moo xam buy lakk wala buy saw muy am jafe-jafe du dikk na war a dikki wala ma ànd ak métit yëpp bu koy jëfandikoo suñu borom mën na ko caa defal tawfiq ba ci ñi nga xam ne sax tey seen tànk yi day métti wala seen lupp yi day métti seen kiwis yi su mel noonu moom it boo ko dëbbee moom ngir boobu nga dëbb ko boole ko lem jaxas ko lem di ko ju diw xeetu métti yu bare bari boo ko defee suñu borom da koy saabal même yaram wuy métti ni nga dëbb ko mokk nga jaxase ko diw lem jaxase ko noonu fuy métti ni nga diw ko loolu suñu borom mën na koy na loolu ci wàllu kër gi ndax soo ko yéeree soññ ci wàllu kër ndax dina tax deret ji daw ni war a ñàkk kàttan yi néew doole gi nga xam ne seng mu am ak boobu suñu borom mën na ci def tawféex ba Euh, yooyu yëpp dara ci saafara te it li nga xam ne tey danay dayal ñenn ñi it nga xam ne danañuy euh, siq ak seen soxna li ñu war a siq moom waaye ndox ma mu di génn du àgg fi mu àgg mooy du mel ni mu war a mel ndundat yooyu nga xam ne noo ci ñoo ci nekk amuñ doole wala amuñ matuñ seen lim matuñ su koy yëy loolu da koy dolli bu baax a baax kon bokk na ci yi soññi góor te it bokk na ci yi nga xam ne day defar ndox moomu su fekkoon dafa manqué wala njaan yooyu daa manqué wala ñu ñëw du kàttan soo koy yëg baax na lool ci moom surtout nga def ko sunguf boole ko lem dafa dëbb ko ba mokk nga def ko sunguf boole ko lem baax na ci lool baax na lool ci wàllu soj nga xam ne dañuy soj soj gi leen yëpp seet dafa ñu toll wala saqat ak yu mel noonu su ko defee sunguf moom itam boole ko lem soo ko dëbbee sunguf mokk nga def ko ci lem jaxase ko léegi di ko jël par kudd bu baax na ci loolu ba ci ñi nga xam ne sax dañoo bëgg am yaram xam na am na ko ko doon laaj ci gannaaw ñi nga xam ne dañoo jeex waaw moom itam suñ ko defee sunguf xooj ko di ko xooj bu xëyee léegi di ko naan lu baax la ci wet ko da koy def dëbb sunguf rek léegi jël ci kuddu rek def ci kaas sotti ci ndox bàyyi bu set su ko defee nga yël ko nga yëgal naan soo ko defee diir te def ci suukar nag suukar kon soo ko defee diiru ñaari semaine faaw da nga yëg ak yokk koo xam ne da nga yëg ci sa poids ci wàllu yokkute googu baax na ci lool kon yooyu rek ay tënkale ci ak yeneen yoo xam ne sax ak yeneen nuñ koy jëfandikoo sax yu bokk la loolu waaye comme li nga waxoon daal laaj dañ ci tënk lool rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah ak li nga waxoon noonu yéey ko ah bu la neexee bu la neexee yéey ko dindi loolu bu la neexee yéey yëpp benn la loolu amul benn ngaañ boo ko yéeyee li ci des noonu ca sunguf boobu dara nekku ci amul benn ngaañ mu ne mën na ko def sunguf di ko maq mu ne mën na ko yéey wan ko mën naa yéey ba ndox mi jeex safar dara nga dindi lool yëpp loo ci def baax na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi